221. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations et asalaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne bëgg seetaan na naa la site d'information la waaye actualité lépp li nga xam ne rek à temps réel la dañ ciy dox incha allah ñu daal di ñëw ba fi nga xam ne rek mooy Parcelles ku ne xam ne nag ñu ngi ci mois de mars mois de mars nga xam ne ay jigéen jàmbaar lañ jigéen yi nga xam ne dañuy takk seen laaf suuf di liggéey ci ñoom rek laay dox tey parce que yéen waxtaan nga xam ne rek mooy euh, showroom American shop muy la fay naa la star maa ngi lay fay bu baax waa Dakar euh, diaspora 221 maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu kulikum ñi nga xamante ni tey dinañ dox ba dajeeg vidéo bi. macha allah dinañ bi tey ku ne xam na ni mars la nga xam ne rek mooy sa showroom mu mag bi nekk Parcelles Assainies. Mm. bi ñëwee ba léegi ak yow émission ndax clientèle bi. Mm. kan mooy tudd Astou. alors. Euh, di la nuyuwaat sama xarit bi Toutou euh, Astou neex na présenté de benn euh, benn jigéen la rek bu dëkk fii macha allah si dëkk bi. Mm-hmm. yaroo fi juddoo fi màggee fi macha allah xam lu mu bëgg rek bëgg contribuer ci ci dëkkam. Mm-hmm. chaque jour dañ naan bul xool sa dëkk lu ma defal xoolal yow li nga mën a defal sa dëkk existence bi donc boobu la boobu jigéen la rek. Mm-hmm. teel bëgg dara si àddunaam teel a focus si àddunaam teel a xam lu mu bëgg nekk si. ma kooku moom mooy Toto Astou bëgg xam li ma bëgg daal nekk si rek macha allah xam li ma bëgg <laughs> nekk ci. Euh, Toto Astou ngay jaay nga xam lépp luy produit ay diw savon gel de douche mhm. boobu. en fait milieu boobu des euh, dafa ñëw naturellement nag ci man parce que man. Mhm. Euh, comme ni ma waxee maa ngi wax sax Toto Astou wax ma déjà sama origine maa ngi dëkk Caajaay déjà di leen nuyu ñoom ñoom ñëpp waa Caajaay Sandiara Fissel Mbadaan lii sama zone <laughs> waaw sama zone ñun ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax donc teel a jóge foofu ñëw dakaar mhm. jàng indi woon ma fi nag bi ma amee bac ma ñëw fi bi ma ñëwee mhm. Dakar c'était pas facile mhm. ndax boobu xaw moo wax dëkk bi lu bëri maa ngi woon ak samay sœur nag sama famille macha allah mais ngay doog a ñëw fenn foo xam te ne maîtrise ko xamoo ko pour nga intégrer sax déjà day metti noonu laa def faf génn dëkk bi yàggul dara ma ñëwaat encore une Euh, donc bi ma ñëwee xool lan laa war a def parce que boobu jàng wees na si man te am na lu ma échappé. Mhm. bi ma ñëwee ma xam ne mënu ma mënu ma reprendre samay jàng ak di daw di dikk te xam naa ni am na lu ma soxla te am na lu sama sama famille soxla surtout mhm. ma sama yaay. Mhm. mënatuma demaat ci école yi ci université yi. ma ne pourquoi pas ma def suma business. si laa commencé di jaay. Euh, déjà dëkk bi ma nekkoon muy États-Unis doo dont le nom d'American Shop by Toutou loolu moo tax sax ma tuddee sama. États-Unis nga nekkoon. waaw États-Unis laa nekkoon donc bi may ñëw dama indi woon ay quelques bagages sac dàll parfum ah, ay déodorant quelque chose comme ça daal yooyu laa doon indaale di ko jaay bagage sew yi nekk États-Unis donc bi ma ñëwee di ko jaay tuddee sama vente en ligne American Shop by Tutu puisque Tutu lañ ma doon woowee ci ci Fosco yi ci dama soboon bëgg ay affaire mbumbaay ay programme tuddee woon sama bopp euh, Tutu Astu léegi American Shop by Tutu jógee foofu vente en ligne boobu de ce fait bi application TikTok ñëwee may def sama TikTok di def sama samay vidéo di def jaay samay cheveux di jaay samay sac daal comme bagage sewee ma indaale woon même bi mu jeexee sama xarit yi nekk foofu dañ ma ko daan yónnee ma koy jaayaat fii donc euh, ñu may laaj sama teint nit ñi concentré tuñ ci ci ci. avant sax nit ñi di concentré nan nga commencé defar diw voilà laay ñëw ñu may laaj sama teint sa teint dafa rafet parce que ku ku ma xamoon bu njëkk xam ne man dama ñuul la nature dama ñuul ku ku ku ku ah, donc na lañ mën a jékki-jékki gis ko ñuul am ay kéntu jékki xees nii daal normal nit yaramam rafet. Mhm. ñu may laaj léegi yow lan nga lan nga utiliser may def ay tito mhm. lii ngay jël ak lii def lii lii ak lii boobu j'étais naïve maa ngi wax gel de douche bi may sangoo saabu bi may di bi may sangoo lait de corps bi may diwoo dama dem ba daan leen def ay mélange donc da ngay jël lait bi jël quantité sérum bi jël lii jël li pour am lii sama benn copine maa ngi koy saluer de passage Kenza moo ne ma yow damay gis ngay dugal affaire yu baax si TikTok bi lu tax mënu ko commercialiser ma commercialiser ma ko ah wax nga dëgg pourquoi pas après yu ñëw diw bi ma doon jiw diwoo ma dem jënd si ay trois yooyu mélangé ko ak sérum yi boosté ko et tout ça defar tëb nii rek def vidéo ni voilà léegi diw bi dama koy commercialiser pour ñi nga xam te ne amuñu accès ci diw bi léegi noonu la demee. jàngoo ko. du lu ma jàng vraiment. nii rek nii par hasard nii nii nii mais au fur et à mesure ma demee ba xam ne lii nag sama métier la. ci laa nag ni ah gëstu jot na ndax man benn diw laa jaay. benn saabu benn crème de visage mosuma jaay ay gel de douche ay savon ay truc genre gis nga li fekk bitig bi yëpp dama li ma yer si ay article xaw ma sax mu toll. gamme bu ci nekk day am ay onze articles donc euh, yeneen affaires yi euh, mooy complément yeeg bagage yi nga xamante ne moom mooy gunge gaaw yi sax xaw ma nu mu donc lu sa fait loolu boo bëggee mu dem ba tollu nii ba tey nga ñëw fi mënoo def interview ndax nit yu bari donc loolu jàng am na ci jàng bi mooy chaque jour maa ngi xool nan laay def ba ki defar tey gel de douche bi nan la ko defaree ak fan la ko jaarale ak nan laay def ba contacter ko nan laay def ba ko nekk sama fournisseur lan moo baax si yaram bi te peau grasse lan mooy type de peau noonu laa doon def di ko jàngaat di ko jàngaat di ko jàngaat tey ba tey nii may waxee yow maa ngi jàng te pareegu macha allah ba tey li ngay waxee man yaa ngi jàng te pareegoo yàlla na xam-xam bi yokku. mais ba tey euh, nga tey euh, nga nekk fii ma cool fekk comme li may wax euh, showroom laa la fekk macha allah. nga nga ko nekkoon ci boutique mais avant boutique man foog naa bi ma lay xam sa biir néeg nga defoon boutique sax. benn partie sa néeg. loolu c'est vrai sama biir néeg sama biir néeg laa defoon sama sama boutique ba léegi étagère yi sànniwu ma ko ndax coloré sama digganteeg étagère yooyu noonu que étagère yooyu léegi samay daal laa siy teg sama biir néeg laa toogoon di jàmb comme ni ma la wax ñetti ñetti ñetti potu saabu laa njëkk a yor vidéo bi mi ngi sama TikTok ba léegi supprimé ma ko di ko jaay ak ñetti potu diw bu jeexee ma jël xaalis boobu ma ci am même bu dee cinquante mille la ma mélange ci yeneen ñetti potu diw di ko def ko def ba affaire mu nekk ay mujj gi mu nekk paan mu gi mu nekk deux paan mujj gi trois paan mujj gi bërigo mujj gi deux bërigo trois bërigo xajatuma fenn ma dem Ouest Foire foofu à côté sama kër ubbi fa boutique commencé di fa jaay Ouest Foire fi ma ubbi boobu bi may ubbi sax ubbi moom. parce que ba ngay ubbi Ouest li ma macha allah man kenn mësuma teg loxo Astou Ndiaye man. sama baat ni poto du kenn du xol du du du du du famille du du du du du kenn daal maanaam sax nii xale jigéen daan def sax nga ni sama copain daf ma may lii wala dal man amul dalu ma man lépp lu ma investir sama place maa ko maa ko liggéey. moo tax chaque su ma gisee xale yi parfois da ngay gis ñoom tamit dañ lay def idole ñëw di la laaj say jaar jaar yooyu ma ni leen man 15000 francs sax est-ce que débuté naa ko. ndax diw bi ma doon diwoo cherul woon à ce point. maanaam bu fekkee 12000 lay jar nga jënd sa ñaari sérum. lépp lépp boo ko am na xam nga waaw li ma ci fere dama ne matul 50000. donc loolu bëriwul maanaam bëriwul somme bi bëriwul à ce point ba ngay xaar somme bu toll noonu pour nga mën a débuter. donc dama dama ko def par hasard. nee nañ yàlla lu mu dogal ci nit rek lu mu nangu ci rek la mais dama ko def par hasard sama diw laa doon diwoo. diw bi euh, en gros bi 9000 euh, la détail 12000 ma jënd ko def ci samay sérum sérum yi 3000 4000 nga defar mélangé donc noonu la ma dikkee donc affaire bi di di jur di jur di jur may jën denc sama bénéfice te ku mën a épargne rek moo mën a moo mën a moo mën a réussir si si si épargne am épargner man mosuma bëgg dara iPhone bi ma ko amee yàggul. wallaahi barki Serigne Fallou Mbacke moom rek laa yaakaar man Samsung bi ma yoroon moom laa yor di ko yor di ko yor di ko yor di ci def si sama whatsapp di ci commercialiser ba affaire bi ëpp ma loxo ma jox ut gérante nabu bu ma ko xamee yàggul nabu ba léegi moom laa nekkal mhm. mu nekk sama gérante bi mu yoree téléphone boobu laa ut beneen téléphone iPhone XR yoo ko te boobu mën naa jënd iPhone boobu moo defe naa moo génnoon mënoon naa ko jënd mais boobu am na xamante ne American shop ci kaw ba suuf lay doon donc loolu moo nekk sama bopp man du ma koy yàq du ma yàq ko retaane wu même samay xale leen bu leen ma leen fay dem ko seen bopp leneen lu leneen lu leen war def si seen bopp man dinaa xool nan laa leen ci mais yéen leen seen bopp leen seen xaas ngeen ci di ngeen di denc di épargne ngir ngeen bëgg ngeen mën ko réaliser donc noonu laa def dama épargne épargne épargne bu mën a tijji sama boutique maa joxe sama caution 3 mois sati mhm. sama boutique ndànk pendant bu may changé feesul moo tax inauguré ma woon parcelle mhm. Ouest Foire Ouest Foire inauguré wu ma ko donc dama ko doon def par par dix pot par dix butéel tey ma jënd gel de douche ba ma defar gommage ginnaaw suba ma defar li ba boutique bi feesal boppam. travaux yi ndànk par ndànk ñu triandé ma ci ma am ci ay <laughs> jaar jaar yu metti ñu dóor ma si en tant que jigéen donc may def noonu rek ndànk ndànk da ngay dem ba benn instant sax da ngay bëgg démissionné da ngay bëgg a bàyyi. Mhm. danaa benn instant ma ni naa naa naa jaay boutique bi nii génne produit euh, wanteer ko. lan moo la may courage li ma may courage sama yar sama yaay moom gën a yokk courage ndax su ma su ma toogee xalaat ko rek dama ah garaawul jarul may bàyyi jarul may lii chaque fois moom man moom au début début bi moom début bi sa man dama doon bëgg a bàyyi tout le temps. Mm-hmm. parce que boobu noonu euh, da ngay jaay jaay bi ngay jaay yow yaay jaay. Mm-hmm. yow yaay war a forcer sa bopp. boobu xama yaay waaw yaay impose sa bopp boobu xamagoo kenn si dëkk bi mm. tey jii di nga xam peut-être opportunité am naa ko maa ngi liggéey si télé sama TikTok léegi yéeg na sama Instagram noonu tout ça lu ma bëgg a publier léegi ci guddi gi dama ko publier léegi suba mu jeex mm. macha allah je touche mais bu njëkkoon yooyu yëpp amul dangay da ngay jaay naturellement da ngay toog te xaar yàlla dugal sa statut donc dugal sa yenn compte yi mm. wax ndànk def ndànk léegi nag da ngay gis naa ni affaire bi macha allah yombalal nañu ko internet yombalal nañu ko gën a neex daal mais chaque jour su ma xalaatee sama xalaat sama bopp xalaat yu bëree bëri yoo xam te ne mënuma ko ñaan kenn te mënuma ko lijjantil fenn ku dul sama bopp ak xalaat ñi nga xam te ne ñoom dañuy jaaxle ñëw ne la tutu nangam laa bëgg na sa reste ñooñu rek nga persévérer ngir ñooñu. comme ni ma leen ko waxee léegi bi tey mu nekk 8 mars journée mondiale de la femme comme li may wax rek naa la jigéen jàmbaar yi lañuy lañuy dénc moom mu bokk ci jigéen jàmbaar yoo xam ne ci réew mi kenn du lim ñaar ba ñett doo ko ci boole American Shop bay tutu. ba tey euh, du ma jógee ci li nga xam ne rek mooy ni nga duggee ci biir milieu bi. Hmm. tey bi nga ciy dugg foog naa ni booba yi xewut. amul woon yàq amul woon guerre amul woon dara. tey nga nekk ci yàlla nattu la nga bokk ci euh, ñiy jaay diw. Hmm. yàlla nattu leen ba jékki-jékki gem bi sax parce que gem sax ni ko tuddee lu dem ba tudd gem <laughs> metti na parce que gem moom xat xoor lañ ko ne woon affaire euh, rappeur yi yooyu. Hmm. mais li jaay diw bi sax gem lañ koy woowee. dëgg la ah mais milieu boo gisee ak game la parce que foo gis teg fight la laaj. xeex la laaj genre euh, dafa laaj bañ. peut ête man fu may déggee game bi foofu laay déggee game parce que boo fi nekkee ci milieu bi te te te doo bañ. doo geer guerre bi geer bi mooy li nga moom nga xam ne lii laa moom li nga bokk nga xam ne lii dama cee bokk te dama ciy dem ba jeex. lii dama cee bokk te dama naa wane dama see bokk. Mm-hmm. te Sénégal kenn moomu ko ñun ñëpp fi lañ juddoo fi lañ yaroo. Mm-hmm. am naa droit samp sama yëf ni man lii dama koo bëgg te fii laa bëgg àgg te dama koy doxal mm-hmm. donc man pour man loolu laa jàppee gémm man a amaat leneen pour mën a defaat leneen loolu laay jàppee man gémm maanaam man su ma déggee gémm sax sama bopp laay gémmanteel bu xoolee ba xool parce dama naan man Astou Ndiaye 2023 warul bokk ak Astou Ndiaye 2024 loolu c'est impossible su ma neemee 2024 su ma su ma su ma xoolee li naan bu déwén nar a ñaaw yàlla mel ni ren man su ma xoolee ba 2023 mel ni sama 2000 sama 2024 mel ni sama 2023 échec la ci man chaque jour damay xool nan laay def lan moo war a yokk lan moo war sama dund kon loolu sama propre guerre la sama propre game la donc c'est tout à fait suñu milieu bi nekk game milieu tailleur yi nekk game milieu keneen ak keneen ndax koo gis chaque jour mi ngi innové ci côté bu mu nekk di ci rayante di wane ne man tamit maa ngi fi imposé TikTok bi kër kër bi dégg jàkkaarloo moo xam kuy jaay savon moo xam kuy jaay moo xam kuy jaay ko mais mën nga am na game sax yu am mais yéen seen game bi fu bëri ay histoire ma ni ma ni def na ma def ma en tant que jigéen en tant jigéen waaw mais loolu ñu koy dund la xam nga man dund ko man ku ma xam-xam ni man moom dëgg fa neex yàlla su ma yeewoo nii maanaam lan moo manqué sama produit yi ma xool lan laay dem ba defal ko yàlla xam ne ne yu bëri dagg ay dagg laa ciy gis maanaam dagg-daggee yi may dox rek ba gis ko noonu ma ne kon lii amoon na fi wala lii yëguma ko woon wala genre yu mel noonu genre loolu man pour man loolu normal la parce que xale jigéen dañoo am fula doom nag gisoo ci kenn ku ci géem nag si si yàlla naa dee ñi siy géem ñëpp ñu ngi xool nan lañ ci gën a génnee ku ci nekk nag sa stratégie de communication ñenn ñi faw ñu faw ñu wax ñëpp dégg leen ñu yëngal tàngal nit ñi bàyyi leen xel parce que Sénégal na kaay ma wax la wane fi lu wane fi lu négatif moo gën a yomb ko wane fi lu positif. tey jii boo génnoon léegi yor sa téléphone di filmer accident yaay ëpp view ko kii ngi toog di filmer benn daara benn daayira bu bu bu buy woy ay xasa itam wala dara doo am view donc Sénégal dañu bëgg lu négatif dañu bëgg kuy wax ay cas bañ na ko dañuy wax ay topp cas. ay bal ay bal ay yëngal ñu lay xool di dévêturaale di la xoolaale xam nga gay di wax sa yooyu noonu ñu lay dafa dafa am réalité la. donc même parfois boo bëggee jaay sa produit nii rek au lieu nga ñëw rek ne savon bii. wala nga ne crème de visage bi dafa baax da nga sama crème de visage bii. taggal ko waxal ko ay wax yoo xamante ne nii. parfois sax da ngay exagérer. loolu moom marketing la. parce que ñun euh, euh, de base dañu waroon dem jàng marketing et communication mais am nañu tamit jaruñu koy jàng doom la si ñoom comme ni ma la sànq ci sama côté bi may jaay diw bi bu mënu ma woon xam ne tey jii su ma jëlee sama diw tel diw <laughs> jël tel sérum jël sa dina ma jox résultat tel mm-hmm. dama ko def euh, par hasard diwoo ko mu jig ma mm-hmm. man li may wax chaque jour lu may lu may jaay si man nii laa ko njëkkee man maay sama bopp maay sama hygiène bopp voilà man maay testé te loolu sénégalais gis nañ ko parce que gis nañ fa ma jógee ba fi ma egg si nii mm. donc ku ci nekk ak sa façon de ku ci nekk say feem ku ci nekk macha allah fi gisee sa bopp nanga fay dem mm. voilà man moom vraiment loolu gém yooyu yëpp. tey yan lan nga lan ngay wax sa sa moroom bu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan mm. euh, bëri nga ci ñoo xam ni yow la ñuy roy tey booy euh, booy booy live TikTok da ngay gis commentaire yi tutu astu yow rek laay topp. tutu astu sama idole tutu astu nii. Mm. lan ngay wax xale yi nga xam ne bëgg nañ mel ni yow wala bëgg nañu jàng yi nga xam mooy defar saabu wala diw. Mm. tey lan nga leen wax. ah ñu jéem a dèjà jéem a toj seen xool ba nga fii nii boo fi nekkee man dama naan wëlalu di jooy loolu ma dal ma bëgg ma mu dal benn xale. booy jooy dama <laughs> man dama naan wëlalu di jooy dèjà li mu leen di njëkk mooy ñu ñeme. ñu ñemee ñu am tuuti fit te man li sama problème mooy man aw moon ko ma fital man léegi sax laa am jëkkër mu naan ma defee nii dangaa yambar dangaa tàppet waxal lii defal lii moom day mooy yanu guerre bi mooy mooy jënd guerre bi non dangaa war a ñemee waa <laughs> waa milig boo si nekkee da ngay ñemee danaa ma dama nga live dama nga def lii dama nga def laa man yooyu yëpp du si fekk man boo ne ma gañi gi na jooy naa dem naa fii dem naa fee te man <laughs> genre parfois nga wax dara Sénégal dafa naqaree wax yow dangay wax dara loo xamante ni jubluwoo si woo sax nangam nit gisee ko feneen déggoo ko feneen donc dama dem ba xam ne lii arrangé wu ma donc ñooñu ñi may ñi nga xam ne ñoom li nga wax sànq ñoom man lañuy ñuy topp bëgguma loolu ma jot a dal tuuti as tuuti nag ndax mettiwul nag bariwul nag bëgguma mu dal leen ba ku fi nekk si milieu bii ñemeel amal sa fit tappal sa fit xam li ngay def te teg ko si lu wóor teg ko si lu leer surtout loolu parce que sénégalais yi dofuñu te ñoom fu nekk la ñuy waxee fu nekk la ñuy waxee lu ñu bëgg a wax aussi dañ koy wax kenn mun leen teree wax lu ñu bëgg a wax donc de ce fait milieu bii nii ma gis nii nii nii nga nekk si bëgg cee commencé bëgg cee percé bëgg cee dem déjà commencé ci déjà lu baax ndaxte wax wax wax dafa am fu muy yem li ci des ay jëf la jëf lu normal jëf lu baax xam ni ngay doxalee sa àddina xam li nga bëgg surtout te di ko dof loolu kese laa si gis. tutu ak gaaw tutu yow si génn mais plus histoire bu ndaw turu taal laay bam explication sax rombal ñi ko. këpp ñi la ah. bëgg sax dañu naan may way Asou Ndiaye a faral eh. la yéen sama saa yi sa la nga jooy ma sàngam lu waral loolu. am na oyof. waaw sensibilité loolu moom. defe naa ne loolu moom c'est depuis mon man moom man moom même bu ma nekkee xale gis nga xale yi ñu daan dóor ci laa bokkoon man ñu daan koj di leen dóor ci laa bokkoon tàppet laa woon maa daan jënd élastique ba pare di jàpp. maanaam jënd élastique ba pare téye ko di jàpp nit ñi di tëb man maa ko doon def donc loolu pour man si bind la rek ci bind la moo tax euh, euh, naturellement man je suis comme ça bëgguma ku ma mere bëgguma ku ku ku ku may ku noonu laa noonu la ma yàlla bindee non loolu moom leneen la sama yaay moom loo wax mu ne sama yaay. waaw man waxtaan mënul dem phrase du jeex te newoo ma sama yaay. <laughs> sama yaay gauche sama yaay droite. <laughs> nga am sa yaay complicité boo xam ni. yow tamit mënoo toog ak ñu boo xam ne appelu yaayam duggul ci téléphone am. déedéet lan mooy sa sama yaay sama kii la sama sama sama séex la sama yaay du sama yaay sama sama sama moroom la sama séex la sama xarit la sama sama vie sama force la. sama moo may déterminé moom moo may moo may may force su ma yeewoo xalaat ko kontaan su ma yeewoo xo sama yaay mooy sama àdduna barki El Hadj Fall sama yaay daf maa taxaw jàppale ma gunge ma sama yaay mu metti mu comme li ma lay wax sànq voyage bi ma voyagé woon ñëw moom dafa bëgg doom du man kese de dafa bëgg doom maanaam ku mu wéetal da ngaan sama yaay da ngaan kii man la bëgg dafa bëgg doom sama yaay soutenir ma di jël sama doom téye ko ni ma demal nga liggéey ma nekk Dakar su ma amee lu ma naqari woo ko su ma yoree mille francs ñu ma bokk ko moom mu may ñaanal di ñaanal samay mag nag te ñëpp ñëpp la siamale moom ñëpp la bëgg doomam yëpp la bëgg mais man man chaque jour dama naan milieu li ma nekk rek comme sànq li ma wax si milieu bi ku nekk li nga nekk rek xoolal li nga ci am man puisque man moo ma jur jur samay moroom yu bëri macha allah ñun ñëpp ñu nekk une famille famille famille formidable bu nice macha allah mais man damay xool li nga xam te maa ko moom ma jël ko ba mu jeex moo tax man sama yaay c'est ma vie mooy sama àdduna mooy sama lépp lépp su ma yeewoo nii barki yàlla si journée bi dinañ ci déggante ay cinq fois six fois sama jëkkër danaa ma neel sa yaay am nga jëkkër ay ay deux de temps waxtaan une waxtaan dañuy wax de tout et de rien dañuy duñu xam sax lu ñuy wax man ak moom noonu la demee su may promo yaay mooy promo de néeg na mënuma lépp ay jeex te barki sëñ Tuubaa lépp ay jeex astaad laa yafatuma taluma ko xolal defatuma dara defatuma ay pub yu metti yooyu noonu te xaw du ma xam sax nan lay demee bitig bi bitig jaara si sa laa ko tuddee sama yaay. def photo yow sa yaay nga ko tuddee boo kooku sama àdduna la dama lu ma ko defal xeet naa ko dama koy lu ma ko defal la dama koo ñamal ndax li ma defal la ëpp ndax lu ma am tey jii moom la su ma su ma tegoon fitna tey lii duma ko am. may ñëw dakaar mun ma boo demee xamal fi nga jógee xamal li ngay def moo tax loolu ma di dégg lu lu positif dong la mën a doon te loolu moom la. xam nga xam nga nan nga mës a dund ak sa yaay mu métti la nga teg sa bët nga nekk xale wala nga nekk mag nga xam ni lii tey tuuti bu amoon capacité bii da koy sama yaay bët bi du xom xam nga mës jaar bëri na jaar jaar maag loolu déggoo li ma la man la moo ma def nii sama yaay moo ma def ma doon gaynde nii nii nii euh, jaar jaar yi bari na dama nekk xale di ko fekk muy muy faay di jaay jaay bii tey may def da doon jaay ñëpp xam nañ ko caa jaay. sama yaay bañul benn jaay gerte tàndarma xolal sump olom Dakar màdd lu ne lay jaay teg su ma jógee école dama ñëw toog di ko jàppale si jaay bi toog si si garage bi samay moroom di ma romb di dem xam nga xale dafay génne wu si loolu surtout maa nga nekk jigéen boo boo boo boo kiiwee tuuti rek da ngay da da ngay da nga naan loolu doo ko def. Hmm. parce que sa xarit yi sañ sa ba njëkk romb la dem dem école yow nga toog ni da ngay jaayal sa yaay màdd wala da ngay yaayal sa yaay maam donc loolu muy mu koy ma koy gis mu koy def ak effort yi muy def rien que pour satisfaire njabootam ma ni lii sama xel lii man wala sama morom maanaam sama si famille bi ñun rek ñun ñoo ko mën a génne si ñun. te loolu sax si noonu laay doxee ba léegi génne gu ma ko si li ma bëgg mu génn ci dëggantaan jaay bala maa am jàmm dafa nekk si château. takk ay or yu bari waaw di di di di di noos daal noos dafa war a noos. yàlla na <laughs> naa mu benn mafia bu dëgër boo xam ni képp kuy jaaykat ci bi rek foog naa ni seen lëb yow dañ la gis gis ñu la nga demalante xale yi mm. moo tax dugalante wu sa nawle yi nga nekk ci TikTok bi. waaw mooy mooy comme li nga gis nii rek résultat yi yaa ngi koy gis ñëpp a koy teg seen bët parce que man comme li nga wax mënumaa boole ragal ak am fit mënoo ragal ba pare di dugg ci di n'importe quoi ba pare ñu tay la la man sagam damaa xam sama bopp xam ban type de personne laa xam ban genre nit laa xam ni man vraiment am na yomb te ni mënuma ci mënuma ci xuus parce que bu demee ba ci biir damay am problème te comme tamit li ma lay wax rek boo amee sa yaay mu nekk sa xarit sànq sa sama yaay bi ñu ciy dugg noonu moom mooy ma temps ma rek jéem xaritoo sama yaay mooy sama xarit sama jëkkër doolu dooleel ko ci. gën a nekk sama xarit. yéen ñi nga xam te ne sax yéen laa xa sax xam as sax yéen gis ngeen nu may comporté woo man sama xarit maanaam sama xarit yi ma xam sax as tuut nii ñoom boo xoolee ñoom ñooy téye sama relation ak ñoom ñoom ma dul bàyyi waaye man bu ma toppee dugg bi génn bi business yi may def ak sama yaay sama jëkkër fii lii sax taluma xaritoo dëgg fa ne yàlla te gisuma si résultat man ni mu gisuma kenn ku am xaritoo yii nii demalante dikkalante ba ma gis la ba ñee la parce que chaque jour di ngay gis finalité yi fu muy mujj du rafet mieux vaut kon ñu toog rek ñu ñu déggante si jàmm parfois ma séen la nga may séen teewul bu ñu gisantee mën nañu nuyoo mën nañ sekk jàmm ku nekk dem sa yoon ku nekk liggéey sa liggéey parce que ñu milieu bi ñu nekk nii moo demee voilà yii ma ciy gis nii saa yi ma ko gisee damaa doy na waar daal jigéen ñu nekk ci euh, journée mondiale de la femme mm. bi lañ doon <laughs> mars réew mi yëngu. waaw euh. am njaay joxul jóg. mami Cobra wax na ma. Pendo ma ma wax Adji Mass nee na ma. Mm-hmm. maam Ndiaye Savon fee Fanta Mbour fële Massamba ma dem ba. tey yow nga xam ne jigéen nga. yow aussi yaa ngi ci euh, ak milieu bi bay sa waar. Mm-hmm. lan ngay wax ci lool li ma la wax rek ku nekk ak sa sa sa sa sa sa kii de sa type type de personne ku ci nekk ak na ngay doxalee. Mm-hmm. man moom du ma indexé kenn te duma duma du ma xalab kenn du ma kenn nii la defee wala naa la defee. Mm-hmm. ndax ku ci nekk tamit ak say façon ñenn ñi dañu bëgg xaritoo dañu bëgg demalante di liiwante parce que tamit bu ñuy ànd dafay rafet dafay neex mais finalité yi parfois moo dul demee noonu. Mm-hmm. te am nañ ci droit aussi ku ci nekk am nga droit xaritoo ki nga bëgg xaritoo mais. gis nga de fu muy mujjee rek comme ni ma la wax rek. show bi lan nga leen ciy conseil foofu laay en tant que jigéen mooy focus rek xam nga lan la ñuy def ñooñu nga lim ñëpp ku ci nekk am na looy jàpp. ku ci nekk yaa ngi sa liggéey ku nekk yaa ngi sa boutique nii ñu ngi si seen i business bopp du dëgg ku ci nekk boo concentré woo ca la nga nekk rek incha allahu rabbi te mu doy la sëkk doy la bu bëgg tubéy nag laa la wax euh, di nga si gis déjà avancement ci sa liggéey ñaar mooy yëpp du la ci fekk yëpp du la ci fekk man dama bëgg rek ku ci nekk comme ñoom ñi nga wax nii ak ñi nekk ci internet bi ñëpp ay jàmbaar jigéen lañ nag quoi qu'on puisse dire lu mën di xew rek ay liggéeykat lañ lu mën di xew si seen milieu lañ leen fekk lu mën di xew si seen milieu lañ nekk di di di di di xeex di xuloo di jotee di liggéey di am di lii donc li nga nekk mu jëlaat la parfois ci ngay defee ay erreur parfois ci ngay juumee parfois ci ngay waxee loo warta wax parfois ci ngay ci ngay jotee ko warta joteel parfois ci ki nga xam ne moom nga war a joteel aussi parce que ñiy ànd aussi bu ñu bañ jotee ku booy ànd nit muy neex sa jëkkër da nga moom mhm. sa yaay da nga moom loo ko bëgg-bëgg sa xarit da nga joteeg moom donc man kay xanaa li may li may li may li may déplorer mooy di ko fësal mhm. ndax ànd bi bu dee neex ni ñëpp di ko gis parce que dañoo war di wane lu rafet xale yi di ko gis parce que xale yi fi ñoom dañoo jàpp ne fi mu ne nii milieu bi yëpp xuloo xeex la mhm. dañuy dem ba ñëpp dañuy jàpp ne bu ne milieu soo bis rek ñëpp danaa xuloo xeex te te te milieu bi am na am na côté yu positif yu bari nag yu si nekk. Mm-hmm. parce que déjà visibilité bi la yàlla di may si loolu boo ko profité bi mën nga ciy wane ay affaires yu baax. Mm-hmm. mën nga ciy wane tey jii tey xoolal xale yi nga xamante ni nii rek amuñu yaay amuñu papa ñu ngi ci ay yenn zone yoo xamante ni kenn xamu leen. Mm-hmm. bu ñu lekkee sax du bu ñu añee duñu duñu reer bu ñu reeree duñu lekki ngay ngay ngay ñuy xëccoo yoo xamante ni ñun am na ñoo xamante ni mënuñu leen fësal pour yooyu di faju

si lu baax ci ay kàddu yu rafet ak kàddu yu yiw comportement yu baax ndax ki lay xool ndax lay xool nekkul euh, benn benn astar rek benn tutu moo lay xool ah sa sa euh, rakku doomu astar magu astar ah magu tutu ñeneen ñeneen yaayu astar ay mag donc ay papa ay ta ñëpp ngi ci biir ci internet bi donc am na ñoo te lu ndaw ñu influencé leen moo tax ñuy tudd turu influenceur lu ndaw la ñuy dégg yaakaar ne loolu normal la dégg ay moo naan dama lay ay bal xale da ngay xale buy wax la naa la wax ay bal tey ma defante yow tey ma <laughs> damay def lii damay def laa donc ah loolu tamit lu baax la mais bon mën nañu xool tamit lu positif ñu di ko teg si table bi mm. donc ñëpp di si mën a jëriñoo pour man voilà Euh, foog naa ni euh, yéen ñi xam ne yéen a toog di seetaan Diaspora 221 kontaan ngeen bu baax parce que comme ni ma koy waxee rek man ko la bu lekk euh, du ma dem ci moom jëli ji ko tey mu nekk 8 mars lépp li nga xam ne rek mooy weer bi jigéen lañ ko jagleel bëri woon ngeen ci ñi ma ne dama doxantu ñu ba si tudd astu ndax ay soppeem bëri na ñi nga xam ne rek ñooy suivre Diaspora 221 waxtaan bi am na solo foog naa ne li ngeen bëggoon xam ci moom expliqué na leen ko te it ñaax na leen waaye yokk na leen surtout boo amee looy tàggat toog ñi nga xam ñoo toog di la seetaan lan nga leen wax ak sama jëkkër ci loo koy wax. <laughs> kooku kay moom xanaa mu commencé si moom moom kay moom li mu def dafa bari dafa dafa bëri. Mhm. dafa dafa beneen tuutu yéen xam ngeen ni ngeen gis beneen tuutu. Mhm. man bokkoon naa si ñu doon laay parfois mu wax ay goromu. parfois ma déraillé parfois ma dugg si lu sama yoon nekkul <laughs> ndax làmmiñ buy dëkkee di wax parfois mu wax loo xamante ni du yoon loolu di si jot a sax jéggalu loolu ma jot a def sax lu ma jot a wax as tout sax maa ngi koy tuub li ma mm. internet dafa doy ba te léegi ba léegi image yi boo defee tuuti as tuut mm. yoo xamante ni du ma neex parfois damay dal damay gis image yoo xamante ne nii sama yoon nekku ci woon lu tax ma def lii ay waay la moo tax ma wax lii genre moo tax damay gën a raar si ci côté ay live ak yooyu parce que da ngay au fur et à mesure ngay topp nit ñi ci commentaire yi ci dara di nga la pousse ba nga wax loo xam ne bëggoo ko wax te wax dëgg yàlla live jaay ñàkk a live jaay ndax produit bu baax mooy jaay boppam te maa ngi ci macha allah donc sama jëkkër jooju dafa gën a ubbi samay bët gën ma jàppale gën ma teg loxo ndax ku ku yokku yaawaañ te dafa ñëw yokk moo jàppale defal lii lu ma lu ma lu ma sumb mun ma ak nga kaa mën mun nga koo def yow xamoo sa xamoo sa capacité jóoba juba <laughs> mun na xamoo sa capacité xamoo li nga mën dëgg dëgg daal te li ma mën dëgg dëgg ñëwagul parce que instant yi mën naan dañuy doog a débuté ñun demaguñu fenn dañuy doog a débuté si suñuy début projet la ñu nekk ci début nañ defee nii nañ defee nii dañoo nekk ci dañ naan théorie bi pratiqué guñu dara macha allah te lépp rafet ñëpp apprécier mu defar ma baax macha allah eh. donc xam naa ni ne nii <laughs> moom defar na ma nag asta dama ko gërëm de kooku dama koo gërëm jëkkër ju ma gërëm la barki Alaaji Fàllu Mbàkke dama ko gërëm nabi dama koo gërëm a gërëm ba xamatu xamatuma sax nan laa koy gërëm dama mënoon woo ay nit ñu may gërëmal nabi dama ko dama dañ may koy gërëm parce que nit nit ku am zéro faute xam nga nit day day ñàkkul daaguwaale man mi sax dafa am daaguwaale mais nabi mooy zéro faute nabi demal sa liggéey defee nii waxee ne te lépp lu ma wax su ma ko defee gis résultat moo tax ma fonk ma bëgg ko dama koo bëgg ba bëgg ku ko tax instant yi gisuma ko waaye maa ngi ci famille bu fa famille famille Njóobeen rek laay topp macha allah Diop Diop Alassane Mbaye loo wax rek man mën naa ko seede ndax mu nekk ku baax koo xam ni ñàkk ki ñaan dalaa bëgg ba bëgg say xarit wallaahi dalaa bëgg bëgg say xarit baax bëgg ambiance foo ko frais foo ko na sa jàmm yaag suñu jóg yóbbul sama fit de yaa ñu sagal tàggatoo <laughs> nga xam ñoo lay seetaan bi bay bëgg a dee ah. léegi ñi may seetaan moom di leen remercier di remercier ni samay cliente nag di remercier wu ñu ma teg loxo samay cliente moom mënuma leen a fay remerciement bi dafa am fu muy commencé waaye amul fu ndax ki la jëlee ci néeg étagère indi la tey ci showroom te di la xaaral yeneen ak yeneen ak yeneen kooku mënoo koo fay mhm. lu ma jaay ñu jënd bu ma ñëwoon tey jii xoolal peñe bi moo baax peñe électrique la dafay def li dafay def laa wax ci samay wax ñu daal di koy jënd kon ñooñu dañ lay defal dañ maanaam confiance bi ñu am ci yow mënoo koo fay li ma mën sama diggante ak ñoom mooy saa yu ma xëyee di leen gën a defal lu baax mhm. maa leen ko waatal saa yi ma xëyee di gën a jéem a def lu baax di def lu baax bu baax a baax a baax loolu laa mën ne ñi nga xam te ne tuuti asu la ñuy topp ah li may wax rek focus xool li nga bëgg te di ko def mm-hmm. wàññi lu bëri parce que yu bëri amul njëriñ te gi seen mucc yi mucc yi gaa ngi nii di bëri da koy gis mm-hmm. te fi ñu nekk nii dara jarul xëcc dara donc nañ def mu rafet donc ñu def ko nuñ ko war a defee yàlla baax na yàlla teg si ñëpp loxo yàlla def Sénégal jàmm def ñëpp am jàmm ñëpp am xaalis ñëpp di ñëw di jënd diw te ngeen di jëndee ci tutu macha allah mu neex ñëpp jënd diw di sant di ci yombal bi ñu yombal tey ñu ñëw waxtaan ak yow nga xam ne rek ne naa la xale yi la doon laaj ci plateau Diaspora 221 bëri na di la jaajëfal di la joxaat ak yéen di daje ba beneen ak ci beneen daanal waaye beneen jàmbaari jigéen incha allah <laughs> 221. Diaspora 221. Pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et